salaatu lazi fi kulli sarin wa fi safar xamaani ala maahin mal absa wa safar jërë ngeen jëf mbokk yi nga xam ne yéen a ngi tàmmoo bàyyi xel seen web tv bi di al tubaa touba point com fépp fu ngeen mën di nekk ci biir réew bu Sénégal ak ci bitim réew ñu ngi leen nuyu leen sant leen gërëm leen wax ne bu ngeen gisee décor bi nga xam ne moo nekk suñu ginnaaw xam ne ñu ngi ci xolu dëkk bu sell bi di Touba jamono ji dëkk bi fépp fu nekk waaye nga fay bàyyeekoo di ñëw fi nga xam ne moom moo di Touba di indi sam njaay wala itam di indi li nga xam ne moo di ay marchandises yoo xam ne dafa jëm ci lu euh, ci bisu Serigne Touba Cheikh Ahmadou Bamba Khadim sol di fukki fan ak juróom-ñett ci weeru safar te ren jii ngeen xam ne ni ñaari édition la ci benn at bi di édition de ci 2013 bi di ñaari édition ndax xam ngeen ni daaw ci décembre bi la ñu ko amaloon ren ñi tam Euh, ci décembre bi lañ ko fas yéenee amal euh, ci 2013 euh, bi xam ngeen itam màggal Touba li nga xam ne moo fi teew ci ay doomu aadama takku na takku goo xam ne ni ñu ngi koy xayma ci ay millions ba tax na fépp fu waay mën a nekk yor sa am njaay ci biir réew bu Sénégal da koy indi ba tax dëkk bi fi mu nekk nii mi ngi commencé fees dell ci ñi nga xam ne ñooy jaaykatu matelas yi ñi nga xam ne ay dawalkatu charrette la ba ci ñi nga xam ne dañuy def transport tam ñu ngi déplacé seen ay euh, oto waaye tam seen ay moyen de transport ngir indi ko ci dëkk bu sell bi ci Touba ngir rek askan wi nga xam ne ñoom ñoo fi nekkee mën di dem ak dikk ci anam bi nga xamante ne ni moom mooy anam bi gën a yemb ba tax web tv azar touba point kom jóg rek ngir bis bu nekk li nga xam ne moo di temps fort yi li gën a fës ci dëkk bi ñu dem ba fi nga xam ne fala fala amee ñu jël leen ko andil leen ko tey yi naka la ñu ko door bi fukki fan desee ci li nga xamante ne nii moom moo di ci màggal Touba gi chaque jour rek dañ leen benn rubrique bu bees que ça mu nekk ci wàllum daral gi wala lu jëm ci wàllum commerce bi wala mu jëm ci wàllum transport beeg lépp lu ci mënti am rek ak gan ñi nga xam ne dañuy ñëw noonu lañ ko fas yéene ànd ak yéen ñu ngi ko dooree fii nga xam ne soriwul dara ak esplanade jumaa ji ngir wan leen jaaykat yi nga xam ne ñoom ñoo fi nekk ak itam nga xam ne ñoom ñoo di ah, ñoo màggal si fas yéene fësal seen am njaay foofule naka lañuy ñuy ak naka la ñuy def ñoom ba balaa màggal gee ñëw lépp li nga xam ne bëgg nañu ko mu nekk lu mucc ayib kon dañ leen di bàyyi ak temps fort yooyu ba ci kanam. Aliou Seck laa tudd. sëñ Aliou euh, yow daa mel ne am nga expérience ci mat laa mi ndaxte ay année ngi nii ñu lay fekk fii ci côté jumaa ji ngay jaay euh, naka ngeen dundee njaay mi jamono ji waaw ñu ngi sant yàlla bu baax di julli Yonent bi sallallahu alayhi sant Serigne Touba euh, di ñaan tamit yi agsi ci jàmm fekk ñu fay jàmm ba ñu romb ko ba fekk yeneen màggal ci barke Serigne Touba niñ ko dundee tamit comme niñ ko daan dundee rek xam nga màggal moom bu dikkee ñun yàlla dafa ñoo nattoo lii mooy suñu liggéey métier muy mat la mat la nag eh, lépp mu ngi ci dafa am mat la yoo xamante bi nii mat la yu ñu uuse la am mat la yoo xam ne yu la am mat yu ndaw am yëpp daal kenn ku nekk ak fi nga xamante bi ni fi la soxla sa soxla boo ñëwee noo ko bëgg rek ñu waxtaan ak yow ca noona ba dafa la jës bëgg-bëgg mooy mooy mat la. mat la dafa mel dafa xaw a gën a yokku. ci kam. jamono ji est-ce gënul yokk comme daaw ak daaw. waaw non non la bi moom fa mu nekkoon daanaka fa la nekk ndax mat la dafa nekk loo xamante bi ne lu lu lu organisé wu la ndax lépp loo xam ne yor nga ko ci njëg rek soo ñëwee bëgg mat li nga am lu tolloog moom léegi nag li ci indi problème bi léeg-léeg mooy nit day ñëw di jàpp mat la boo xam ne fukki junni la wala fukki junni ñaa ak ñett di ci fay juróomi junni fekk na juróomi junni yooyu su ko yoree mën naa am mat la boo xam ne bu baax la bu a tëddee dégg nga nit ki tamit yow ñëw yor ñetti junni di laal mat laab juróomi junni xam kon kooku problème la te léeg-léeg nit day ñëw ci sa place jàpp fi benn mat la fay ci benn prix dem ci benn place jënd fa mat la gis fa benn mat la boo xam ne moo gën a nday boobu mais du ko xàmmee moom ci gisam ndax diggante douze ak dix dañoo jegeñee léegi su ko dee ma la xam ne maanaam dafa xamut nga bàyyi ko mu dem loolu mooy action mais amul ne moom ak jafe-jafe nekk na ci soo bëggee moom te bëgg a am li ngay jënd waaw ñun nag fii moom mooy ñuy liggéeyee man mat la moom parce que mën naa def naa ci daanaka ñaar fukki juróom wala fanweeri at waaw man defuma leen liggéey may mat la rek laa xam mais eh, bari waay gi parce que da ngay gis dëkk bi léegi foo romb rek gis ñuy jaay est loolu du yàq dara si liggéey bi. day tax mu gën a baax ndax marchandise balaa moo mën a jar dëgg dëgg dëgg day bari ñoo xam ne am na eh, nit ñi ko te it mar la fekk mar bi mu mel na meloon rek ñun ñoo xam ne ñu koy organiser di ko dugal di ko génnewaat mais du jeex léeg da gis ni romb fi yaay wax ne ay yéen si mar dañu fay yàgg fekk na yàgguñu ñoom ñoo xamut mar bu génn bu génn rek

waaw am na ñetti catégorie am na ci ñu jënd matelas ñoo xam ne mooy ñi fi dëkk defar seen lal ba mu pare ñu doon waajal màggal gi ñu dañuy jënd matelas bi moo gën a ñoo xam ne tamit maanaam dañuy jënd dañuy jënd matelas pour ay gan ñu ñuy jënd matelas yi gën a sew mais la xamante ñu ñibbi yóbbaale matelas ndax xam nga boo gisee lii moom jógee parce que ñu daanaka fi ne nii bu màgg xasee ñëw prix unique la ñuy daanaka la ñuy fi nekk du ñu ci wut bénéfice nañ jaay mu jar rek ngir kenn ku nekk boo ñëwee am li nga bëgg am parce que fu nekk li prix bi ni ñu koy wàccee ci biir màggal gi su màggal amul du ñu ko defee noonu loolu moom bokk na ci li xam ne mooy ni ñuy doxee. installation bagage yeeg ak ndax ñoom sonaluñ leen ak yu mel nii boo taxawee fii bu fii nekk fële boo xam man lay xoolal man bu nekk fii di jaay am lay xoolal te it man la ne nekkul loo xam ne lu neex lu la te itam ñun ngi leen suñu matuwaay moom a affaire u bandit moom moom ñun xalaatuñ loolu moom déedéet déedéet ndax. mat laa mën nañ bu màggal gi day lay commencé di jar ba ban ba ban dat euh, màggal moom ma màggal moom moo ci gën a dox ginnaaw màggal kasu rajab ginnaaw kasu rajab tabaski ñetti période yooyu mooy yi gën a dox ci màggal bu dul boobu nag moom da ngay kii naxante ni ndànk ndànk rek. ginnaaw ma fa ma li ma bëgg wax mooy jamonoy màggal. mën nañ ne buñ màggalee ba suba ga la njaay mi di wàññeeku wala ginnaaw suba ga ban ban daal ngi nga xam ne njaay mi daal fi ne daanaka jeex na ci màggal maanaam màggal moom fi mu ne nii diggante semaine bi nga xam ne mooy mooy jub mooy jub màggal ak semaine bi nga xam ne ci la màggal topp boobu moo ci a dox ndax semaine bi jub màggal ñiy wàcc la ñuy jënd semaine bi màggal gi jeexee ñii ñibbi ci ñuy jënd mooy ñaari semaine yooyu moo ci gën a moo ci a dox waaw mooy bi avant màggal semaine avant màggal ak semaine après màggal waaw a yomb si matelas yi mooy mooy ban yi ñuy wax mer gàddu. waaw a yomb. yan yan yan yan kàddu ngay tëjee. xanaa di leen sant rek di rafetlu seen ab liggéey la xamal ne lii ñun ñoo waroon a ñëw ci yéen di leen ko defloo kon su nga ñëw ci ñu a xool seet na baax jërë ngeen jëf seen liggéey rafet na. man Abdou Thion laa tudd. sëñ Abdou depuis kañ yaa ci euh, installation màggal geeg wàllum jaay. am naa fi amoo depuis màggalu sëñ Cheikh ba léegi maa ngi waaw naka nga dundee njaayu mat laa meeg euh, waajtaayu màggal gi. xanaa préparé rek comme nañ ko daan préparé waajtaayu màggal gi moom màggal moom xam nga comme li ma daan wax rek am na fi ay journaliste yu fi jaaroon. la ma waxoon démb rek moom lay waxaat tey ñun moom màggal gi dañ cee bokk ndax gan ñi mënuñoo ñëw kenn di leen tëddal ci suuf wala nga leen di tëddal ci basang ci matlaa rek nga leen mën a dalale kon matlaa ci màggal gi la bokk te ñun taalibe Sëñ Tuubaa lañ comme ni ko ñëpp doone ba pare dëkk ci dëkk bi di teral gan ñi comme ni ko nit ñi di terale ah kon ñun li ñuy jaay ci màggal gi la bokk moo tax ñu ngi koy préparé nañ ko bu baax a baax matelas yi doy na macha allah dëkk bi foo tourné matelas yaa ngi fa jële waaye fii nag day xolu ma day xolu matelas yi ndax bu ñuy wax matelas ci Touba kës fii ci kër Sëñ Abdou Lahad moo tax ñuy wax nga xam ne daanaka fii ba dakaar ak foo dem rek boo waxee dañ naan dem bo ne miiru kër Baye Lahad rek fa ñuy jaayee matelas yi fii mooy xolu matelas bi barke moo tax fii moom préparé nañ ko nañ ko war a préparé matelas yu ndaw yaa ngi fi basang yaa ngi fi matelas yu mag yaa fi lu waay bëgg ci matelas ak ngegenaay boo ñëwee fii am na fi macha allah. place yi di jaayee mais ñaata mètre carré lay nekk. 5 euh, mètres 5 mètres la rek. même gan ñeeg ak ñi nekkoon ci dëkk bi ñëpp ñooy bokk kii bu fekkee ci miir bi la non non kenn ku ne nga li nga li nga li nga soxla rek moom ngay jël kenn ku ne li nga soxla rek moom ngay jël xam nga am na ñoo xam ne ni mën nañoo jël 10 mètres jël 7 7 mètres am xam ne kenn ko ne li nga soxla rek moom ngay jël. Euh, yéen mètre bi ñaata lañ leen koy euh, jaayee. Euh, mètre bi nag moom dañu koy baaxee rek nga kër sëñ bi moom lépp xéwal la. Ah, nga xam ne ñi nekk ñëpp fayuñu. dañuy baaxe rek moom waa kër sëñ Tuubaa lan rek waaw. ndax njaayu mat laa am bari na xaalis. ah macaat la rek ndax fi mu ne xaalis moom fi ko am bareetut c'est que nag léef moom lu ñu am lu ñu joxee sëñ bi ak donga yi ak ak ak kër gi rek ñun sëñ bi ak njaboot gi rek waaw sëñ bi njaboot gi. mooy suñu bëgg-bëgg. mën nañu période bi yéen a ngi jaay bu baax. waaw ñoo ngi sant yàlla alhamdulilah bu bu yokkeet ñu jël bu yokkeet ñu jël ñoo ngi sant bu baax baax. yan kàddu ngay wax nga xam ne euh, ñooy ñëw di màggal seeg indi ay matelas ak waxaale li ñu indi mbaaj ji parce que dëkk bi sedd na. ñi ñëw di màggal si nañu préparé ku ñëw rek na indi xaalis rek ta xam ne matelas yaa ngi fi jot muy jënd matelas di paas ci oto yi muy xotteeku wala ngay sonal sa bopp ci euh, fere yu bari yi parce que fii moom comme makka rek ñiy aji màkka di dem di jënd foofu fi mooy tubaa ku ñëw lépp ngi fi ndax sëñ tubaa mooy mooy jawriñu yonente bi lu am màkk rek sëñ am na ko fii kon lu waay fu jóge di ñëw rek na bàyyi xel ne lu mu bëgg rek bu ñëwee fekk fii ci Touba te dina dina dina am na mu gën a jàppale bu soobee yàlla. wax laa wax mbaaj te dëkk bi sedd na de. waaw mbaaj moom euh, bokk na ci yëf yi ndax euh, dëkk bi moom sedd na fi mu waaye nag sëñ tubaa moo mel noonu day wane boppam ndax ñu bari nga doon xalaat na tubaa day tàng waaye sëñ Touba moom daa neexut dàkk ci benn côté. ndax jaayu mat laay du ma gis jigéen. ah waaye xam jigéen ñee ko préparé wut pour pour liggéey rek xam na jigéen moom daa bëgg lu yomb jigéen ñoom dañoo bëgg lu yomb yaakaar na ne moom jaay banaana ak yeneen tiite yooyu la rek waaye pourtant jigéen mën nañ koy jaay comme ni ko góor ñi jaay parce que góor ñi moom léegi neen tooguñ lu góor ñi def ñu ngi koy def. mën nañ koo def comme ça. seen kàddu ngay tëjee. xanaa di leen sant di leen gërëm rek di ñaanal Cheikh Sidi Moukhtar mu yàgg fi. ñu saag bi. di ñaanal gan ñeeg ñëpp ñëw saag bi moom mën naa la ko jox waaye dama la ko dencal ba beneen yoon rek. amul benn problème lépp dina baax. Mamadou Aliou Talibé Diallo. Ah, fan nga jógee ñëw Touba. Guinée laa joge ñëw fi samedi léegi ñëw fi jóge Guinée ban jour ngeen jóge Guinée. Euh, mercredi la jóge Guinée. Mhm. wàcc fii ban jour. ban jour fi ci def ngeen cinq jours si yoon. non non ah, quatre jours ngeen def si yoon bi. Mhm. ñu wàcc fi mhm. waaye oto yi jall na Dakar. mais yéen loolu dina dina bi dina cher de ak bagage yi ngeen yor. cher na kay. phase bi kat seer na mhm. ah ah bi kat daal am na si yoon bi tuuti mhm. sonjaay bi am na si yoon bi tuuti mhm. waaye indi naa ananas ananas yi ñor na léegi mu ngi jaay si màggal ananas yi Guinée lañ koy daggee laa jógee kay Guinée la ko bayee bayee Guinée tabal kii defal yëpp Guinée indi fii def si carton yi indi jaay li ñaata tonnes la bii nii mun naa nekk dix tonnes wala wala vingt ñaata ñaata année ngi nii ngay ñëw Touba yow. man nekkoon man en man nekkoon na fi cinq màggal ma ngi ñëw Touba man Dakar laa nekkoon Touba Thiaroye laa nekkoon nekkoon na Touba Thiaroye dix ans ma ngi Touba Thiaroye. ngi kees bi ñaata nan ngeen ko nan ngeen di jaay ananas par kees par doom. par kees kees bi mun naa jaay kees bi kees bi mun naa jaay par kilo si ngeen peese kees bi nekkee di nekkee cinquante kilo ku fay kilo téeméer nga nekkee trente kilo kilo téeméer. par benn mun naa jaay benn sept six cent cinq cent mille francs bon quatre cent yëpp am na. yow ñiy détaillé waat nga koy jaay da jaay en waaw détaillé jaay en gros en mu ngi naa jaay cent francs vingt cinq cinquante yëpp am na. ananas dafa mel ne période du màggal rek lay am Sénégal loolu moo tax. maa ngi joge indi indien na Dakar sangineer chaque chaque un mois mun naa ñëw Dakar sangineer jaay. est que Sénégal am na ananas bu mel nii bu xam ne fi lañ koy ANACIM bu nekk fii Côte d'Ivoire wala Guinée wala Casamance tuuti waaw Guinée la dinañ jóge Guinée la bari. instant yi client yaa ñëw est-ce que. waaw waaw client yi naa ñëw foog nga naa si bariwul te Touba bariwul xam nga nekkee dix oto kono trois oto moo ñëw si màggal bi pour pour ni jaay man naa jaay ah, na de. Ah, xanaa bi wax ay 400 baax na. 400 baaxul foofu foofu moo seer Guinée. ak ah, transport beeg montage si yoon bi lañ laaj xaalis. waay waay a transport ak kii a carton a pooye lépp di ko jëndee yëpp fefere la. Mhm. si fi ngeen di nekk nii da ngeen fiy fay. waaw. ñaata. benn wala quinze mille. ñaata fan ngeen koy. ah ba mu pare jaay rek ñibis bàyyi fii. est que jàpp nga ne stock bi nga yore dina jeex fii ak màggal. waaw waaw lii kay da ngaa bariwul tuuti la ñu ñu doon bariwul. naka nga gisee màggal Touba en tant que Guinéen. waaw yëpp da ngaa ñëw si raaya seen Touba boo ko jógee Guinée da ñëw si raaya seen Touba waaye <laughs> Euh, mbokk yi tey ji leen ñu andi loon ci seen temps fort màggal Touba édition 2013 leen dig daje euh, suba ak jàmm di leen euh, sant leen gëm di gërëm waaye xarala yi nga xam ne ñoom la ñu ba ngeen mën ñoo teg bët ci cadrage bi maam na Faye ci ndimbali Serigne Soy bu Mbàkke ma soxna Awa Ndiaye ci kàddu gi jërë ngeen jëf. في كل سار وفي ظفر حماني ألا ماهن ما الأبصر والسفر